abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi euh, way leen di abonné te ngeen di bës cloche de notification bi ngeen j'aime vidéo bi mën nañ ne kat ak fitna ji nga xam ne rek moom mooy xew fii ci Sénégal ci jamono yi ñu toll nii ñu gis nag ki nga xam ne rek moom mooy président CEDEAO moom it mu daal di génn di wuyoo ci turu Omaro Sissoko Embaló moom mii nag daal nay jot a xamle kàddu gu nga xam ne Sénégal yëpp daal nañ koy naqarlu mu nekkat Sénégal dara xew fi nekkat dara amu fi dañoo bëgg li nga xam ne rek moom mooy coow wante kat mën nañ ne li fi xew du lenn lu nga xam ne rek war naa tax ñuy wër di wax mbir mi ni mel nag mën nañ ne dafa mel ni daa am lu làqatu ci gannaaw nekkat gannaaw gi sax gis nañ ki nga xam ne rek moom mooy Emmanuel Macron moom mii daal di dikk définitivement daal di artu nag ki nga xam ne moom mooy doomu ndeyam ne ko troisième mandat na ko teg ci suuf même bu fekkente ne beneen poste sax daf kaa soxla na xam ne moom dayoom ëpp na loolu mën naa am yeneen post ci diwaanu Afrique gii mbir mi ni mel nag buñ si daal dolli li nga xam ne rek moom mooy la Omaro Sissoko Embaló daal di wax moom mi nga xam ne nag moom mooy président bu CEDEAO daal di jote yëkkati kàddu yi ni mel teg ko ci derub Sénégal ak ko gis ni nga xam ne rek noonu la fitna yi daal di demee ba ñuy wax ne lu ma ñaar fukki bakkan ak juróom benn ñii ne fukki bakkan ak juróom benn daal di nañ ci des bu si manti am mooy ne am na ay doomi aadama yu si loru nekkat waroon nañu mën a am beneen gisiin beneen taxawaay bu bokkut ak di génne ay kàddu yuy fésal kenekat réew mi dara xew fi président Macky Sall mi ngi yëgle que ne kat képp ku nga xam ne rek taqe nga wala laale nga ci manifestation yi passé nañ la daal di topp ba fa mbaxana doonee benn cey Sénégal kon nag jamono bi ñu toll nii moom kaso yee nar a feesati dell rek ndaxte kat mën nañ ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo wàccoon ci terrain bi bari nañ lool te tamit nar nañoo viser ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko te loolee kat bëgguñu koo def direct indirect lañ ko bëgg a def.